ngeen jëf ami internetu MPROD TV ñu ngi la ñu nuyu di am mbégte lool tey nag ñu ngi fii ci diwaanu Almadi Ngor ah ci mosquée bi nga xam ne ah, fii nii boo ko gisee rek xam ne tey jëf ju baax rek moo fi am ndax jumaa ji bërëbu ah, suñu borom ba tax na tey animatrice boobee di Amina nekk vedette foofee ca ah, moom la ñuy may jëkkër kan moo koy takk ñu ne Malick Naar Malick Naar mi nga xam ne moom la Waly Balago Seck woy woy gu rëy muy Malick Fall turam ñu ko ci xam Waly Balago Seck woy ko woy bu am solo moom moomu nag tey la ñuy may soxna ki ñu koy may mooy Amina Poté moom moomay

alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu sallallahu alayhi wa sallam bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngi wane suñu mbégte ngoon gii tey bi nga xam ne dañuy daganal ñaari way dencante yi ku góor ak ku jigéen ci ndigal xalif Ababacar Samake kon ñaan am na maye am na kon sëy bii fasu no can teew na sëy bii fasu na wax nañ can bi million yoxe nañu ko kon alhamdulilahi rabbil alamin seede yaa ngi nii sëriñ baa ngi ni joxe na ndigal kon ñu def xutbatul haaj alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi ñaan yàlla bi nga xam ne moo ñu fekkee ngoon gi ñi tey nii bi picc sunu maam Adama ba ngoon bi ci nii bi ñu nekk nii tey bépp sëy bi ci amoon barke yàlla na ci yàlla boole sëy jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def ci njaboot bu am barke saalihiina saalihaat bi jaay rasulillahi indallahi léegi xutbatul haaj moo des ñu fas jubli ci ñu wax amin <clears throat> wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa taala min shururi anfusina wa min sayyiati amalina ñuy ñaan ñi ñu ci jumaa ju ji yàlla na suñu borom def ay njaboot yu góor ak yu jigéen ñuy ñaan ñi nga xamante ni ñoom la ñu boole fii yàlla na suñu borom dëppale seeni wërsëg te seytaane yàlla bu mu am ci ñoom yool bi jaahi sayiduna muhammad bi jaahi alquranul karim bi jaahi al masjid al mubarak li cheikh babacar samake sëriñ bi moom dañ koy beral ngërëm ak nuyoo spécial ndax sëriñ la boo xamante ni lii yàlla subhaanahu wa taala dig la ci doomu aadama bi mu ngi ci taxaw sabaxan wa masaan bu dee jàkka yeeg jumaa yi xam naa lu mu gàtt gàtt liggéey na ci lu mat ñetti jumaa yu ñu xam waxuma yu xamul nag de fii liggéey na fi jumaa mooy nekk nii Bamako gee liggéey na fa juma dem nañu fa poko barki démb la ñuy seen jumaa ja kon nag seriñ bi war nañ ko wax kat yal na la yàlla guddal saw fan yal na ko yàlla yàggal te it jumaa la joo xamante ni jumaa ju yàlla barkeel la ndax lépp luñ fi def ci lislaam lañ koy teg ak diine kenn newu fi di parparloo kenn doxu fi doxi caaxaan te moom mii lépp luñ ko waaye jox doomu aadama la koy jox kon nag kooku la yàlla subhaanahu wa taala wa wax fa fi amwaalikum andi may jabar nag de. Ah. waaw a gën a fonk. Ah, ñun tam ñoo ah, xam ne moom la ñu mayee ki nga xam ne mooy Amina Poté digganteem ak Malick Fall di Malick Naar Wally Balago sekk wéy ko wéy bu rëy ba ñu taxawal nii nag duggulet ñu xam ko rawatina ci digganteem ak Malick Naar waaye mu bokk Ramdaan bu ñëwee rek mel ni représenté na waa daan yëpp euh, mon frère Mbaye si Ndiaye maa ngi lay ziar. maa ngi fay di am mbégte ak contentement di nuyu ñu ni seetaan ñëpp à travers yéen ah wax dëgg yàlla tey nag dañoo am mbégte ak bànneex ci suñu bisu ñaari nit ci nu teewaay nag li ko waral mooy Malick Fall suñu frère suñu xarit di nit bu baax wax dëgg yàlla nit boo xamante ni tàngamluwul kenn ci dara wax dëgg yàlla nekk ba Amérique ah wax dëgg yàlla bu dee xew xewle nekku fi. ñun ñooy war a mën a déplacé wu ñëw représenté teewal ko ci bisam bii parce que Malick sunu lépp rek wax dëgg yàlla tàngamlewul dara bien vrai que nag mi ngi Amérique wax dëgg yàlla di ko wax ni ko moom frère ñu ngi am bànneex ak contentement di la teewal ci sa bisu soxna si nga xamante ni tamit taalibe Serigne Touba di Amina Poté di nit bu baax tamit di nit boo xamante ni wax dëgg yàlla nitu nit ñi la Sénégal gépp fonk ko bëgg ko bis bi daal wax dëgg yàlla ah sunu loxo nijoor la ak sunu loxo càmmoñ wax dëgg yàlla macha allah ah, loolu koy firndeel rek mooy gis nañ seen taxawaay ba ci organisation bi da cee dugal seen lépp muy wane ne nit daal amul lu nitam waaw loolu moo ñu war wax dëgg yàlla bisu maalit wax dëgg yàlla ñoo war a teel a ñëw ah, teeru gan ñi indi gure yi indi tàngal def séddale lépp wax dëgg yàlla parce que loolu moo ñu war Malick jaral nañu ko sunu frère la suñu xarit la te nit bu baax la nit bu mën a def lu baax la. nit bu mën a sonn ci ñi mu xam ak ci ñi mu xamul. rawatina nag suñu jigéen Amina Poté wax dëgg yàlla bis bi daal wax dëgg yàlla yàlla na sëy bi yàlla barkel ko boole ko ci sëy yemu làkk ca aras. ñu dund ba ñu am ci lu toll ni Seydina Mohamed tuddee ko ko am ci lu toll ni tey jii maanaam képp ku jigéen rek. tey référence tey jii te ñoom ñu amoon rêve bu tuddee la doom wax dëgg yàlla yàlla na yàlla defal leen jàmm. macha allah euh, yan kàddu ngay dénk ñoom ñaar ñi nga xam ne nag suñu borom moo leen boole. waaw ñaari ñaari borom baax lañ. waaye ñaari nit yu yàlla baaxal lañ. ay nit lañu yoo xamante ni nit ñi xam nañu leen. donc nañu soor ni sëy dafa am des hauts et des mhm. wax dëgg yàlla ku ci nekk ci ñoom bu jàppee ni sa morom sa bopp rek wax dëgg yàlla amee naa moom. ah man xam naa ni taalibe Serigne Touba la ku baax la kon donc xam naa ni dana roy ci soxna Maam Jaara Bousso wax dëgg yàlla ah Malick it wax dëgg yàlla xam naa ko mm-hmm. xam naa ni ku mën a teral doomu aadama la mm-hmm. kuy teral doomu aadama nag mm-hmm. di nga teral sa jabar te wax dëgg yàlla xam naa ni ñoom ñaar ñëpp bu ñu àndee ci noonu ñaari ñaari nit ñu baax daal moom la yàlla suñu borom boole yàlla bu leen cat topp yàlla na leen cat seexlu bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa ñaan gii ñu leen ñaanal ñu dund ba ay njaboot gu bari gu barkeel yàlla suñu borom def ko ci bi jaay Seydina Muhammad jërëjëf Mbaye waaw kontaan nañ jërëjëf amali maa ngi lay fay suma waa ji macha allah tey nag bésu mbégte la tey bésu xew la Amina Poté sa jigéen la waaye Malick Fall tamit xam nañ seen relation ak ran ran rawatina yow tey nag nekk bésu mbégte ma bàyyi la nga nuyu internet waaw di nuyu ñëpp rek di la sant di la gërëm di nuyu àdduna bi yëpp mm-hmm. nag ci bis bi contentement la xol bu neex. maanaam ci gàttal ah. Euh, di la ñaan la ñoom ñaar ñëpp parce que ñoom ñaar ñëpp ay borom baax lañu. naa ku baax la Malick Fall tamit noonu. nekk nit koo xamante suma nit la. sama copain sama seex. waaw ma koy ñaanal nag euh, yàlla na leen cat romb. di dem yàlla yàlla bàyyi leen ñu ànd di dem ba ay. yu am maanaa feeñ ci. ci kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw macha allah yaa ngi wax léegi sa copain la sa xarit la te li koy firnde mooy bi ñu ñëwee wane ni sax yow lépp loo xam ne moo xew ci xew bi yaa ko def ci organisation yaay woo nit ñi te yombul ñuy gis lu mel noonu Amady Badiane di ko def. waaw loolu moom ma war parce que loolu la ma ji lu ma xew la taxaw na ci muy naqar ak bànneex mu nekk nit koo xamante ni il est comme ça il est dafa il est maanaam ci gàttal muy naqar bànneex lépp lu ma xewle wala su ma lu suma nit xewle mi ngi ci da ciy tax da ciy taxaw taxawaay boo am maanaa kon donc moom bu xewlee damay takk sama ndigg matal lépp ba mu mat ci kàttu say naan ba lépp yem loolu moom ma war waaw ma ko ko ñaanal daal jàmm salaam. ak wér ak wérle. mook soxna si waaw macha allah ah, donte ñoom ñaar kenn nekku fi waaye mel na ni ñu ngi fi lépp yemb na ndax gis nañ délégation bi. mel na ni ñoom ñëpp ngi parce que lii boo leen xoolee kii copain d'enfance am la. mook ñii ñoom ñii ñoo defandoo armee ñoom ñaar ñii. ok Malick ah. ak ñaar ñii ñoo defandoo armée. Mhm. kee nijaayam la. Mhm. papaam la. Mhm. kee mooy seen géwélu juddu. Saint-Louis lañ jógee ñoom ñii Saint-Louis lañ jógee. Mhm. kii moo fi nekk Wakaam. Mhm. ci camp bi nekk Wakaam. waaw ñii mhm. ku leen xool xam ne Mali rek a taxaw. macha allah. kon nag ma bàyyi leen nga nga jokkoo ñoom rek. mu rafet baa ma baa ma njëkk a nuyu suñu nijaay eh, nijaay maa ngi lay jaar. Ah, maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen waa Ndakaaru. Euh, di leen ndokkale si bis bu màgg bi nga xam ne sunu jarbaat lañ doon ñaanal fi soxna bala may dem ci Malick Fall nag may dem ci xaritam bii nga xam ni booy wut ku wóor ba ñëw ci sama waa ji ci nga yem nit ku gore la nit ku baax la nit ku wóor la nit ku ko taxaw fu nekk ñun de suñu jot barewul waaye moom jëmmam tax na ñu ñokkatiku doxali malik li mu bëgg mu nekk nit ku baax nit ku wóor nit ku am colère la ca des nag duñu ko wax dañ mhm. koy denc mhm. di ñaan sëy bi yàlla na ko bokk si sëy yàlla barkeel amiin yaa moo am problème ndax man mosuma sëy takk sëy bi yëngu pont pont gis laa jëlee mar euh, ndar daaj ko bom ni kekk doge dugg si jàkka ji Amina yàlla na ko yàlla defal jàmm moom it nit ku baax la di dolli wax rek maalik bu mu dégg benn doomu aadama gis nga nit ñi dañuy bañ nga am lu baax boo xasee ba am lu baax ku si ne dana créer sa ay morsa sakar naan kii lii kii lii jabar ju baax la am nit ku baax la am nit ko gore la am doomu jullit la am waaye doomu jullit moo ko takk waaye góor pire ko takk waaw foofu rek laa amoon lu may wax jërë ngeen jëf. incha allah wax donc géwél moom lu mu day neex lu mu lu neex maa ngi lay jërëjëf maa ngi lay delloo maa ngi lay nuyu euh, di am mbégte lool tubarkàlla maa ngi nuyu sama nawle yi ma fi fekk muy Amary Badiane di ndaanaan waaye maa ngi nuyu tubarkàlla mbokkam yi mu àndal maa ngi nuyu kilifa yi ma àndal jóge ndar nu daw ay kilomètres yu bëre ngir def lu yàlla bëgg yont yàlla Muhammad bëgg ko muy daganal diggante di ci jiital Mamadou Mbeng di wëllëre Malick di lépp malik seen diggante di altine ak talaata bis doxu ci di nuyu jàmbaar Malick ji nit ku baax ku wóor koo xam ni booy seet malik altine boo ko gisul bu talaata boo demee këram fekk ko fa muy Babacar Fall di nit ku baax ku wóor ku nu wóolu ca ndar waaye ku nu doyloo ko di nuyu malik nag naaru Fatou Mbeng di nuyu malik naaru Alaaji Ahmed Fall ma ni jooy te noppeegunu di nuyu maalik mi maamam soobu ci dex gi ci ndar deba su ko ab sa buunun moom ay sa tey se jeey Fatim Penda dammel teeñ lat sukaabe nuyu naa buur nuyu dammel tey bu yàlla dogalee nu daw ay kilomètres yu bare dikk doon yeew diggante ki ni koy yeewal ñëpp miin nañ ma ci plateau muy Amina Poté di ko xam ni dama ni ko fi nga juddoo fi nga yaroo fi nga màggee waaye góorgóorlu nga ba marqué sa empreinte ci lu baax te rafet dafa nuroog mbaax koo daq mu dem ci jikkoom te senegal la kaay ma may laa jafe waaye du kaay ma wax la nee naa ko bi nga juddoog léegi amul benn baaraam bu nu lay joxoñ di yabeel mbaa xeebeel kon boo jëlee ñaari junni teg ca ñaari junni vingt mille lay doon waaye boo jëlee ñaari junni teg ca téeméer day doon dix mille cinq ñaari junne ñaari junne mën a ànd kon yàlla dogal na tey Malick li muy baax baax baax jël na ko baax nu ñaan yàlla seen diggante sokkorloo na asamaan ak suuf waaye yàlla def ci njaboot ju barkeel Amina tooñ naa ko sànq ni ko yàllaa ngi lay dégg doog a dénk borom kër dama ko ko wax ndax dama xam ca yiw ga xam mbaax ga ndimbal ga xam baayam bu baax ba alaaji Ahmed Fall na mu sottee woon potu yalwaan ya def ko salaire waaye xam ndayam ju baax ja ajatu faatu mbeng këram ga tubarkalla amari dafa ubbi buntu kër ya def ko këru doxandéem ku xiif fa ngay lekke waaye ku mar fa ngay naane yal na yàlla barkeel sëy bi barkeel seen diggante waaye def ci njaboot ju barkeel. Mhm. jërëjëf jërëjëf maa ngi lay fay. bu baax. waaw maa ngi lay eh, tey doon mbësu mbégte eh, sa doom sa xarit Amina Poté ñu koy may borom kër eh, ngeen ñëw dooleel si ko si li nga xam ne mooy xewam bi. waaw ñuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ñuy sant yàlla bu baax. sant suñu ñaari waajur macha allah di ñaan uh, yàlla lafal ko cat nag yal na ko yàlla lafal cat ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan yàlla guddal fanam te wéral cëram te yàlla bàyyi ko jëkkëram di kontaan nag vraiment ndax li ndam la nag tabarkàllah ndax amee naa daray caaxaan xama ko te jigéen sëy rek moo ko war kon tey ji bu nekkee sëy jigéen da nga nekk célibataire am góor gu baax ñëw bëgg la doo def lu du sëy moom may ñaan yàlla yàlla bàyyi ko borom këram ci barke Seydina Muhammad te yàlla la fa ko cat nag parce que élève Amina elle est brave elle est très brave Amina ay collègue am ñoom ko gën a xam daray caaxaan amu ko ci fulla ak fayda rek rek lay dox naa mi ci tele bi amee naa mi ci kër gis ça fait boo gisee amee Amina danga naan dafa bëri cëfër cëfër te boo ko fekkee këram elle est très timide Médoune mii xam na li may wax kon na ñu koy ñaan rek yàlla la fa ko ca te yàlla bàyyi ko boroom këram parce que amee naa lu mu am du chance mérite la parce que ndeyam moo ko liggéey caanee ngi ni mooy seen taaw bàyyi ma lépp nag léegi laa koy gërëm na ñoom dañ ma bàyyi Amina moom mi ngi jóge ba Kaolack man maa nekk fii Amina te ma benn yoon seetu ma ko fenn Amina bu ñu demee restaurant sax yàlla xam na ko ak yonente bi balaay suñu commande bi di pare sax mu nelaw dama ko dama koy woo des fois ne ko journaliste yi laay woo ñu ñëw filmer la ndax balaa commande bi di pare nga nelaw elle est innocente te Amina wóor na Mouhamed dina la ko ñu bari xarki yonent yàlla Mouhamed li may wax dama ko xam te mag laa dem naa màkk ba ñëw du ma dara loo xam ne gëmuma ko ndax nag yàlla bàyyiwu ma di ko ñaan rek yàlla lafal ko cat yàlla sàmm ko yàlla aar ko yàlla musal ko suturaal ko yàlla bàyyi ko borom këram di remercier nag borom këram ndax vraiment li mu def dafa foor ndax jigéen ñu bari nag nekk nañ fi su ko neexal mu tànn keneen mais li ma gis ci Amina moo tax mu mu mu takk ko taxawaalul demul fenn gàttam tànkam noonu la gàtte yal leen yàlla jubóole te boole seen wërsëg te yàlla may leen njaboot yu barkeel ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam may yeen ñëpp nañuy teew. di kontaan si ñëpp di kontaan si sama goro Médoune moom moom macha allah heure bu amee naa xewle il est toujours présent te moom mi rek micro bi moom mi nga ko waroon jox ndox moo amee naa du ñu ñaar kenn lañu. donc man da nga sawar rek dama jox micro mais midi rek mënoon di jël à ma place kontaan naa jërë ngeen jëf. à côté jógee ba Kaolack tey nag doon bésu mbégte ma bàyyi la nga nuyu internet yi. waaw maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen jaajëfal di leen di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa salaam ginnaaw loolu nag may ñaan yàlla sëyam bi yàlla doon sëy yi mujj ci sëy yi. yàlla la mu ci gis dala dum ragal parce que jigéen la mais jàmbaar la góor la moom mooy caat ci sunu famille mais daal moom mooy taaw parce que lépp lañ ko def yàlla da ko teg responsabilité mu nangu ko jël lépp déggoo ko te ñu koy ñaanal nag sëy bi yàlla na barkeel sëy bi yàlla na barkeel sëy bi yàlla na barkeel yàlla na doon jëkkëram mu doon jabaram yàlla jubale kook jëkkëram boole leen waaw ndax moom doxul dara ci caaxaan dafa ñëw dakaar bu ko neexoon mu def ne xale dakaar mais deful doxul dara ci caaxaan loo wax muy xalaat ginnaawam di ñu xalaat ñun ñuy magam di ñu tiitoroo ñu ni ñu koy tiitaroo du samay doom du man mii ñun ñëpp moom la ñuy tiitaroo ndax moom lañ am amuñu kenn ku dul moom mu doon nag nitu média nitu média nag dafay métti waaw dina di nga dégg lu neex di nga dégg lu naqari waaye donte rek mi ngi koy dégg di ko assumer rek te kenn du ko si fekk rek baax na parce que goom gor bu taxaw rek ne loolu gis si man preuve de génne leen rek kooku ñemee na li muy def ragal du def loolu te ñeme na li muy def fi mu jëm waaw ñu koy ñaan nag bu dee suñu waajur bi kontaan na ci moom yàlla bu gis dara lu mu ragal ci sëyam man mii magam di ndeyam man dama kontaan ba mënu maa wax dara waaw waaye dama koy ñaan yàlla na yàlla def jàmm yàlla suturaal ko ni mu suturaale ni mu sagale yàlla na ko yàlla suturaale sëyam bi sagale ko noonu yàlla na doon benn sëy ci barki Seydina Muhammad loolu rek laa am loo xam ne loolu laa ciy wax. yaa ngi wax lu am solo euh, siiw du jaami borom rawatina ku nekk ci média euh, sëy bi nag nekk sëy nit ñu siiw euh, lan ngay dénk sa sœur naa Poté ak jëkkëram bi di Malick Fall. xanaa di ko wax rek mu góorgóorlu lépp loo xam ne dafa ko woon. waxu ko woon ba dugg ci sëy bi na gën a góor góorlu gën a fas jom te may wax jëkkëram it na ko jàppale te xam ne jigéen la góor la jàmbaar la amul ndey amul baay ñun rek la am te ñun ñun ñëpp ci ginnaawam lañu wékku ñun ñëpp ci ginnaawam ñun moo ñu boot man maay taawu yaayam di téppam mais nag moom mooy sunu lépp waaw moo koy wax mu yërëm ko suturaal ko bu amul lu mu ko jox sax na ko yërëm suturaal ko téyel ñu ko ak fukki loxook ak juróom-ñeent parce que xale bu neex la xale bu am jom la xaaluy daray góor kon nag na ko jàppale ir ko suturaal ko moom it moo koy wax mu gën a góorgóorlu ci lépp loo xam ne rek dugg ci woon waxu ci woon bu mu dex bu mu dugg ci néegu sëyam bii mu tax mu ci dugg lu mu doon doon nitu média mbaa kam sëyal doon na nit ku siiw na gën a góorgóorlu fas joomam jëm jëm amoon ba muy kaw lag na ko gën a takku te xam ne joom jooju mooy woy ba ba muy dee du deñ ndax doomu góor la te góor maanu ak jub rek moo la war te loolu mi ngi ci moom xam naa loolu am na jom maanu na jub na yàlla na borom jàppale daal yokk ba mu yëg yokk ba mu yëg ko barke Seydina sance bi am na solo lool macha allah tey nag doon bésu mbégte seen xarit Amina Poté ñu koy may jëkkër waaw donc maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp tey nekk euh, un jour spécial pour une personne très spéciale. Mm-hmm. di euh, Amina Poté Amina Talibé Serigne Saliou bi borom Ngotak Mbour borom ndal borom njowaan ga caroon xay ga kon defe naa ne kooku rek defar na jikko ji bala may ñëw ci benn question boo may laaj. Mm-hmm. waaw yaa ngi koy wax léegi nga ne Amina ku baax. seede boobu am na solo ci doomi aadama tey boo ñu doon wax kuy Amina Poté ak relation yi ngeen am lan nga ñuy jox waa Amina xale bu baax ndax nag wax dëgg yàlla ñoo bokkoon benn kër mhm. mën naa ni bokk nañ sax benn lal fanaan mhm. mu nekk xale boo xamante ni xale bu yaru xale bu ragal xale bu réglé xale bu jàpp njàmbaram bu téye tànkam mhm. bu maandu nag hors télé Amina bu nekkee ci télé bi rek lay wax wala muy am saleñ saleñ waaye Amina bu nekkee këram wala nga taseek moom ci place di nga xam ne Amina xale bu am éducation la xale bu réglé la xale bu jàpp ñàmbaram la waaw macha allah macha allah euh, lan nga koy dénk ndax euh, say yombul donte suñu borom mayoon na ko fi jëkkër mu weddi ànd boobu weddiwaat ànd boobu suñu borom mayaat ko keneen euh, te réew nekk rek da ngay wax loo xam ne si ñi siiw ñi rawatina biir wi day bëri si ñoom ñooñu nga xam ne dañuy am jëkkër waaw xam nga coon sekk dafa way way mhm. boo xasee ba siiw rek exposé wu nga mhm. donc ku xam dina seede lu baax ku xamul dina seede lu lu bon mhm. voilà donc mais dañ koy ñaanal rek sëyam bi yàlla na nekk mujjantalu sëyam di ñaan sëy bi yal na bokk ca sëy ya ñu takkee ca aras di ñaan yal na ko yàlla lafal cat ci sëyam bi ndax Amina ku ko xam-xam ni sëykat la sëy rek la bëgg bëggul foo bëggul caaxaan Amina bu sañoon ci farata yàlla ak na sunna Muhammad rek lay dund kon dañ koy ñaanal sëyam bi yàlla bu ko ci cat dugg te borom këram nag dama koy wax ni am na soxna su baax na ko téye bu baax a baax a baax a baax ndax nag bala bala ngay xam sa waay dem ba këram bu ñëwee ba këram dina xam kan mooy Amina Poté Amina Soye bi borom taar beeg jom ji macha allah dañ koy ñaanal rek sëyam bi yàlla na nekk mu jëntalu sëyam te yàlla may ko ci njaboot gu barkeel ci barke Seydina Mouhamed jërëjëf maa ngi lay fay macha allah tey nag doon bésu mbégte sa xarit sa jigéen sa lépp koo xam ne yéen ñaar seen relation ñëpp xam nañ ko fii ci Sénégal muy Amina Poté suñu borom tey nag may ko boroom kër ñëpp ñëw fekkee xew bi. waaw xanaa di kontaan rek di ko ñaanal yàlla moo xam ni mu bëgg ci sëy bi yàlla na ko yàlla defal parce que Amina nit ku baax la. Mhm. nit ku yaru la. nit ku bëgg nit la. Mhm. Amina ni muy wane ci télé bi ak ni muy defee du benn. ndax ku bëgg sëy la ku réglé la. Mhm. Amina demul dikkul. macha allah dañ koy ñaanal yàlla rek moo xam li mu bëgg ci sëyam bi yàlla na ko yàlla defal ci barke yonent bu tedd bi nit ku baax la daal. Euh, témoignage yëpp benn la Amina demul dikkul ku baax la ci liggéeyam la nekk muy firnde rek ne Amina exemplaire la ci réew mi. waaw loolu moom am na exemplaire la bëgg na nit bëgg na ay mbokkam bëgg na ay xaritam bëgg na ay yaayam ndax ñun ñii yaay la ñuy wax ndax ay magam lañ ndax dañoo yàgg moom Médoune mii xam na ci dara loolu yàgg na démbal waaw lu yàgg nag dëgg la te bu mu ñu jàppee ba tey bàyyiwuñu bëgg nañu fonk nañu respecté nañ te ni mel lay mel dañuy ne Amina xam nag li mu bëgg ci sëyam bi yàlla na ko yàlla defal yàlla na nekk sëy bi ñu takkee ci aras ci barke yonent bu tedd bi yàlla bu ñu séddale dara ci gannaaw vraiment nit ku baax la vraiment euh, mu am nag jëkkër joo xam ne am na tur fii ci Sénégal nit ñu xam nañ ko rawatina moom tamit Amina Poté te sëyu boromi tur euh, yenn saa yi day bëri coow lool lan nga la ñuy dénk lan laa leen di dénk ñu ñu bañ a déglu ñu bañ a gis jàpp rek teew bàyyi te àddina moo mel noonu ku siiw rek foog ñu teg la fu ñu war waaye xam naa ni ni ma xamee Amina xaw ma borom këram nag dama koy dégg rek waaye xam naa ni incha allah dana ko gérer yàlla mi am mën lépp yàlla na leen defal ñu gere ko ci niñ ko mënee ci barke yonent bu tedd bi. jërëjëf merci. Kani wax na ko. waa am naa ma wax ci moom. ndax mbaa xam. Euh, bu ne euh, nit baax na dañ ne mbokk yaa ko wax. te ñun ñi fi ne ñooy ay mbokkam. waa man dama koy ñaanal rek sëy bi kel loolu rek laay wax yàlla na sëy bi barkeel te mm-hmm. jubale ko ak borom këram mm-hmm. lafal ko cat waaw loolu rek may ko wér mm-hmm. bu wéree rek lépp lépp dina baax incha allah ñëw teewal sa doomu ndey sa xarit waaye nag ñëw nga ci sa biir yi mbokk wax dëgg yàlla ndax nag ñëw bi fii démb la du tey ndax sa baay bu baax ba coon sekk mi ni jooy te ñoppee guñu kanigée ngi nii taxaw papa gee ngi ne ca ginnaaw taxaw ah wax dëgg yàlla day guma ngoone sunu sang bi nga xamante ni amuñu lu dul moom ki nga xamante ni senegal amul lu dul moom naaru Kiné juuf naaru Papa Thione waaye doomu yaayu Malick Fall yow xam nga ni boo dikkee lu ma sonn sonn sonn sonn dinaa jug wax ndax nag ku ko def ku ko la bëgg kii na fait rien n'entend rien du tout dama ni yow sa teewaay fii kenn duñu lu tax sa ñëw fii kenn du lu tax wax dëgg yàlla may sa tend daaw mbaay ak gala daaw mbaay yow boo egsee fii représenté ci Malick Fall ay mbokkam nekk naaru kinna Diouf naaru Papa Thion kenn di yow ci mim réew yow xam nga ni koo ni maa ngi ñëw nit ñi dinañ toqaar la wax dëgg yàlla ndax yaa ko ji ci réew mi yaa ko def ci réew mi kenn du yow ci mim réew xale nga waaye ku am jom nga xale nga waaye ku am fulla nga may sa tenda daaw mbaay ak gala daaw mbaay du ma taay di wax ci yow njiin yow say mbokk say xarit réew mi yaa njaboote ñëpp. yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla oyofal na lépp. amiin yàlla bàyyi fi sa sa yaay ju baax ji ajaratu kii na Diouf jaaga ndax nag mooy lépp dama ni yow sa teewaay fii Kani Gueye xam ngeen ni day kii sa sët yaag baayam ñëwal Kiné Diouf a wuri ba Kiné Diouf nday wuri ba nday wuri ba mari abrous nday wuri ba mari abrous a abrous ak papa gay xaar mi ma jur ñoo bokk benn ndey la ay wax day faram maay maamam dëgg la kii man may maamam ndeysaan Pape Samba Gueye mais mooy maamam dëgg la Ramatoulaye mi mooy raam mooy maamam ñi fi ay maamam lañu la nekk xale bu baax nag nekk xale bu baax. mu nekk xale bu baax. xale bu yaru. xale bu yaru. nekk nag sagu famille bi. nekk sag ci réew mi ak famille bi. ndax euh, Olof Ndiaye nee na. Olof Ndiaye dani. nit ki dina la dina la sori. nit ki dina la sori. fekk jege na la. fekk jege na la. mënoon nañ mënoon nañ ñun. mënoon nañu chaque jour ñuy dem këram. nee na ñoom mënoon nañu chaque jour ñuy dem këram. mais dañoo gis ni macha allah. waaye dañoo gis ni dañoo xam li mu yenu voie bi mu jël. voie bi mu jël. voie normale la. voie normale macha allah. macha allah ni ñu koy teg ci yoon. parce que noonu rek la mën a mel. ndeysaan a doon. dafa mës a am jom. mës a am jom. waali mii. waali mii dafa mës a am jom. te li may wax moom xam na. ndeysaan. tourné tourné tourné caméra bi. nee na yow xam nga moom xam na. man xam naa. ndeysaan xale bu rama mi xam na. ndeysaan xale bu am jom la. xale bu am jom. nii rek la mënoon mel. nii rek la mënoon mel mënoo woon nekk dara lu restar. nii rek nga mënoon mel maa ba pare nekk yaay nekk Baye Fall. nekk Baye Fall. nekk taalib Cheikh Ibra. nekk taalibe Cheikh Ibra yal na la yàlla lafal cat. yal na la yàlla lafal yal na la yàlla sàmm. yal la la yàlla aar. xam naa ne gisoo ma de. mais ku la laal rek laal na ma. ku la laal. laal ku la tudd. tudd ma. jërëjëf. genn golo gàtt na wante boo ko dóoree borom yëg ko. dëgg la. doxalal bul gestu nag. dëgg la avance. waali woyoo cuune de Lat Diop déggan mbaay jor dem ba déggan mbaay daagu daagu déggan kuraak faaleeg déggan sunub sag nga nun bëgg nu kenn nu kenn yow rek la ñuy wër ab sag ku ko am wër ko biteel bu ne la mu def moom la kubéer gay xeeñ yàlla na nga dund yàlla na nga wér mariasin may sa biige may maar ajum naar mi ci ndéem njarka dembe mi ci làmbaay njiin borom belal ana ana aja maa tudd jibi sekk gawlo maa tudd Jibi Seck Gaw la communicateur ba ca Ndar ana Adja Kani Gueye may ma ma àggale may ma ma àggale laay laay dama koy ber lii fii koy defal laata jëm dëggan mbaay bu doon koo ko jox mu kuuñ mu kuuñ Adja Kani Gueye Adja may tuuti ma wax moom Ndar dafa sore may ma ma àggale waali nee bu ñëwee fii nee fekk fi maamam Adja Kani Gueye nee te waxu ko jërëjëf waali nee bu génnee xelam du dal de ne xale loo koy defal nee na doon lu baax ndax day jàpp te du fàtte nee yàlla dafa dogal moom ak maamam ñu bokk benn koñ nee Adja Kani Gueye ngay maamam nee bu jàqee nee day ñëw dugg sa néeg tëdd ci sa kaw lal nee ajaarama mi toog xam na li muy wax nee booba ndaw ñi bëgg na noo dem kermes bëgg na noo baali nee bëgg na lool di am weccit nee yàlla dogal képp ku dëkkoon ca koñ ba boo amee soxla ci kani gay papa xaar mi toog ca ngay dem nee moom mi toog nag nee da di sëtam ba pare di xaritam nee Adja Kani Gueye nga yàgg koo dimbili yaa bëri ngor nee saabu bu bëggee génn nee day ñëw ni la jox ma. nee bokk nga ci ñi ko njëkk a may ci tolluwaay ba muy xale vingt cinq mille jëm cinquante mil booba ku ko am da nga koy jënde leneen. nee booba boo ko amee dangay def fër te doo ko tal maye. nee yal na la yàlla sàmm. nee yal la yàlla defal jàmm. waali ne Adja Kani Gueye kontaan na lool. nee kontaan na ba ci kanamu yàlla. nee jërëjëf Malick Fall ndar-ndar bi. ne jërëjëf Amary Badiane. nee yàqaloo ko dara. nee lu baax lu ma am. nee ko ko nee yàlla na la yàlla defal jàmm waali nee ñi fi nekk ñëpp mi ngi leen di gërëm nee mi ngi gërëm Amina Poté mu baax mi nee yàgg na koo jàppale laal ci musique nee sëyam bii yàlla na barkeel nee yàlla na gën bépp sëy bu mu mas a def nee yàlla na ko yàlla dimbali nee waa kër Maali yi ñëw di Babacar Fall nee yal na leen yàlla delloo ci jàmm ngeen àgg ci jàmm bàyyi fi jàmm te fekki jàmm te bu ngeen yeggee géwél bi nettali lim fi fekk. Adja Kani bi nu ñëwee léegi danga noo teral te géwél mën nga koo teralu ne ba mu des fotal say bët lii mayor ñaar fukki junni la Malick dafa bëgg lool Amina waaye Amina dafa bëgg lu may nanu fukki junni jaamu Amina Poté may fukki junni. géwalu Amina Poté jottalil ma Adja Adja Kani Gueye Papa Gueye xaar tubarkàlla yàlla nañ dund ba janoo yàlla na nga dund ba janoo sa goro bu mat goro ba ajatu faatu mbeng yaayu Malick maa si géeg maa jooja kuli kumbaak daw yande maa jooja dëggan mi ci ngënale maa sàmba numbekan jaw bi des colam faal waali waaye baatoo la. ak Alaaji Malick ziar waaw lay fay bu baax a baax macha tey nag doon bésu mbégte euh, sa jigéen sa lépp Amina Poté mi nga xam ne tey moom lañ may borom kër mhm. yow tamit nga fekkee ko sa diggante ak Amina Poté moom umpul ñu bëri dëgg la dëgg la waaw mais ñu ngi leen di fay bu baax a baax a a baax nga rek boo kontaanee sa doo mën a wax mais muy jigéen bu am jom di jigéen boo xam ne guerrière la di jigéen ju mën góor mënuñu ci wax dara ndax réew mi gis nañ lépp ku nekk ci aar booba ba tey te kenn mënu laa génneel lu ñaaw dañ koy wax rek waaye duñ ko gis kon loolu ndam la muy jigéen ju am jom nag nangoo liggéey di ku bëgg sëy yàlla na ko yàlla suturaal boole koog borom këram borom këram it ku baax la wax nañ téléphone mu wax lu rafet di ku baax te yaa baax yaa baax rek la baax mënut a weesu baax ndax nit ku ne buñ lay waxal rek yaa ko liggéey yaa ko liggéey ñu koy ñaanal rek yàlla lafal ko cat saytaane musiba ak balaak bépp xeetu gàllankoor noonu la sunu xol dafa fees ñoo wax di ko ñaanal. muy balaa nga dem rek benn laaj. Hmm. mooy kan mooy Amina Poté waaye tamit eh, ñaareel bi mooy Amina Poté ñëpp benn seede bi lañ seede. Hmm. Amina mi nekk ci tele bi ak kër ga bokkuñ ndax jikko bu rafet la yor. <laughs> ah mais la ni mu mel ci kaf yooyu bu ñëwee noonu la mel ak ñëpp dafa yàgg doon guerrier day jékki-jékki sa xolo wut be benn appareil ne damay foto di fayeeku dafa yàgg am joom noonu la demee te nit loo yàgg rek bu yàggee mu wuy si la juddoo ci juddoowul ci këru ngéwél te gis nga ko ni yàlla li dégg gi yàlla def ci moom mm-hmm, waaw kon loolu macha allah tawféex la sama yaay noonu la mel doomi jàmbur ko gënal ay doomam mm-hmm. bu joxee doomi jàmbur tey nga kaas yow keroog doo ndekki day jaayantu sax jox leen ma ma jaay ñu ne ko yaay looy jaay doo yaay artiste ngay war a mu ne dee dimbale leen ma bu saafee ku ñëw mu ne la doo jënd waaye jëlal boo amee fay bu ñu xëyee soob mu ne xoolal lebalu ma la ko de dama la kaa mayoon noonu la demee amit boo yendoo ci këram lu mu am jox na la ko lu mu am jox na la ko noonu la moom daal mooy li li ñëpp wax rek li ñëpp wax rek dañuy feddali rek li ñëpp wax caane yi nga ne mooy si mooy yaay waaw ah, wax na ba pare kon noonu baax na yàlla na daal yàlla fay ñëpp ku ci ne yàlla na la yàlla fay yiw tànk yi nga dox ba ñëw yàlla na la ko yàlla bindal yiw te yéen seen kii bi ñuy ñaan yàlla mu fawxa seen jot dem ba doon télé bu mag macha allah noonu daal la demee kontaan nañ trop wax lépp